asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéenay suivre enquête 221 tabaarakallaahu ci chahru ramadan bi ñu ngi ciy baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq leen indi lu bees tàq fii ci enquête 221 ak seen mbokk alxaaji Maodo Niang tabaarakallaahu bayaan lay doon ngeen koy am bis bu nekk lundi ba alxamis incha allahu taala à partir de 13h nu muy demee ñu dinañ ñëw indi leen ay ayat alquran indi leen ay xadis yu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa wax indi leen lépp loo xam ne aju na ci koor ak lépp loo xam ne aju na ci diine incha allahu taala fii ngeen koy amee ci enquête 221 duñ ci yam dinañ am ay invité yoo xamante ni incha allahu ay ustaas lañuy doon waaye ay boroom xam-xam la ñuy doon dugg ci ñoom ak ci lépp loo xam ne domaine la ci biir islam waxtaan ci ak ñoom incha allahu taala bu leen fàtte nag bu defee loolu ba alxamis tàkkusaan ñu defa leen en direct incha allahu xadaratu juma fii lay xewee enquête 221 ak seen mbokk alxaaji Maodo Niang asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.